mbokk internet yu impro am nañu mbégte jàkkaarwaat ak yéen mais du Diouf ñu ngi fii Pikine ginnaaw raay Pikine ginnaaw raay ki nu fi indi nag mooy Prince xale bi nga xam ni bu jógee làmb jóg rawatina banlieue bi Prince tey war a daje koo xam ne tey ci Jokal mburu Keba Kanté mburu Keba Kanté la dajal Jokal waaye tey boo fi ñëwee da ngay xam ni Prince xale bi na ko làmb bàyyi xel Prince ci kër gi moon ginnaaw fi la Prince war a takkee war a wutali fee ci arène nationale ma Diouf laa ci àndal bu leen buuse lépp ma wan leen lu presse ndax ku xam ne presse xam Marème Naar mboolli mboolleeg day torokeeg ah day njaab rek lu ngay dégg ginnaaw raay ñu ngi xaaral di Marème Naar nag parce que tey ngeen gis lu gën ma gis ci impro kenn du impro. presse dafa ndoo lépp ana mbër mi. waaw dëgg la mi ngi ci biir waaj. nan ngeen waajee. waaw ñu ngi di waaj rek ah, comme dab rek ñu ngi waaj comme dab rek. ah am de moo leen jiitu ci lamb ak bu leen expérience. waaw loolu dëgg la dañ ko parce que mbër moom xale bu ndaw la te yàgg na ci lii mbër mu jël rek ñu ne ko a ah, mbër bu mag la te tey jii xam nga dafa doon mbër boo xamante ne ñun ñoo ko yar PNAS ñun xam ne ko bu baax PNAS du bëre ñun ñuy tiit parce que ñun ñoo ko yar comprendre nga ñun ñun tey igir xayra bi bi di wax xam ñun ñoo ci nekkoon ñun ak ay moroomam comprendre nga ay ñoom seega ñoom laay Balla Gaye ñoom waaw sama gars yëpp ku lim juum ana mbër mi laa bëgg a xam tey la mbër mi nan lay takkee parce que da boo xam ne day combat capital waaw góor dëgg la mais tiituñu ko combat capital ngeen mais tiituñu ko dañ koy jàppale te boobu dañ koy yàgg jàppale ngeen am de waaw dañ koy daan jokkeel mbër la jokkeel la ku bëri ay Tidiane Faye bëri ku nekk champion nga xam nañ ko bu baax a bu ñëwee nag jox nañ ko cër quoi bu yoroo ñu daan ko daan bu sedd mais nag bu ñuy indi xajam xajam lu nag. ñu sembere ko xam nga sembere. sembere laa foofu nag lan mooy sembere laa dañ koy sembere di ko mboli. dañ koy sembere di ko mboli mboli. kaay yow kaay. mbër day ñëw eh, waaw mbër ngi ñëw mbër maa maa gi noonu. presse gi noonu mbër maa ngi noonu am na lu mu yanu. mbër maa ngi noonu am na lu mu yanu. presse gi noonu xale bii na ko làmb bàyyi xel. xale baa ngi nii presse bi noonu. wuy ma jox ma micro jox ma micro. xale baa ngi noonu. am na lu muy lekk am na lu mu gàdd. dugal fii seen boo dugal fii da ngay noppal. presse xaj na loolu. ça va xoolal teel a ñëw rek. maanaam xoolal xoolal. dugaalal ñu rek yow. xale bii na ko lamb bàyyi xel. xale bi mais nuyu naa la. yii jaar xale bi génn rek coow lu yënguwaat lan la. ah gis nga prince nga waral. fan la jot na am na léeg-léeg gum gàtt. Ah, am na léeg-léeg gum gàtt. am na léget gu mu gàddu fan la jëm xale bi day lamb de. xale bi day lamb de. yàgg na yàgg day lamb de. wér jaaxal mooy xale bi daa génn coow li mooy yoon mooy yoon presse am mel noonu. waa kii bi dajal. presse ah. Ah, dem leen waa presse presse presse ngay dem. presse ngay dem de fan la jëm gàddu na léget. gàddu na léget presse fan la jàpp rek daan comme. fan la presse jëm dama gàddu léget jëm fan la jëm. waaw ñu ci mbir yi rek comme noonu. waaw Omar nga ni. dama état am fi ah. waaye presse Medoune presse ngay dem de Medoune Diouf. joxe na sarax bi bay ñëw moom chance am mooy kenn du ne kenn ne ana mbër mi moom fu mu moom ngay gis li yàlla koy def yàlla koy def bayre xale bi daal bu yobu bàyyi ko xel de. ab réew ko topp de combat yi su ma ko am ñaari baat nag waa mbër nuyu naa la maa lay fay Fadal maa nga jàmm am naa jàmm nga waajee waaw maa ngi waaj ànd waa Pikine waaj Seydou loolu mi ngi waaj mi ana bu ma amaat papi mu mënoon a amaat papi nee na mi ngi waaj Seydou xale bi xale bi na ko làmb gën a bàyyi xel. sotti presse presse maafe nuy maafe kaay. maafe xaw ma dama daa kaay. ko bëgg sama pala la bilaahi. waaw. nga wax lan tey ki ngeen mag la yaa ma gën a xam jàpp daan ñibbisi ñun moom ku ñu xam-xam ne mooy loolu jàpp daan rek ñibbisi. non dëgg la mais tamit dañ ko jox lu moom jox ko jox ko wàccaayam lépp mais moom soobee yàlla bu ñu jàppee rek laa ma ji jàpp bu neexee yàlla incha allah. waaw jàpp bilaahi dañuy bëree jàpp daan ñibbisi bilaahi walaay wa talaahi ah. waaw bu neexee yàlla incha allah baax na nan xaarandi ba tey waaye nan xaarandi prince Present. Present. nijaayam laa ko yaayam ak sama jabar ñu bokk ndeeg baay. yow noo tudd. noo tudd Jean Jean Ndiaye waaw. Ah, tey nan nga waajalee sa jarbaat. a ah, ndam rek ndam rek laa si gis. loo ko jox mu ndékki tey la la ndékki. mu mu ndékki kay moom moo ko ah? moo xam lu mu ndékki moom ndam rek laa gis mbër mu mag la de comme di di di mbër moo xam ne yàgg na ci laam. loo koy dolli sa jarbaat. kii kii xale la xale la te am na doole entraîneur. kan mooy prince. prince. kii mooy prince. ah kii moy prince. yow yaa prince. kon jërëjëf. yàlla ñun xam nañ ko. ndax ñoo ko yar sax boo xoolee man mi wax ak yow quarante bi mu amee licence man maa ko defaral ci man la ñëw ne ma damaa bëgg a bëre te damaa bëgg licence quarante laa bëgg ma defaral ko quarante ne ko lépp li nga séntu yàlla na ko suñu defal. te boobu ba boobu ba tey tamit teggiwul yoonam wax dëgg yàlla noonu lay jàppee ci noonu la joxee grand frère am yëpp cër noonu la joxee nit cër. man damay dem ba damay am kersa si moom sax barki alxuraanu karim ndax fu ñu daje ma ak moom dinañ kaf dinañ saafante dinañ reetaan ndax euh, boo xoolee moom moo dugal boppam sax biir ASC Jokko ñëw ne damaa bëgg a nekk président commission euh, supporter pour sensibiliser moo tax tey bu toogee da koy wax danaan ñun Pikine lañu am ak ginnaaw mais di ko ñaanal ndam bu sedd guy si combat bi ndax li topp si ginnaaw bari na lool te man dama naan lii mbiru yàlla la du njàmbaaru nit ndax yàlla mooy defee nii ndax am nañu ko fi gën a yàgg fuuf nekk gën ko nekk ay mbër mais wax yàlla di yàlla defal dañuy ñaan yàlla yàlla bu ko cat topp yàlla na ko yàlla musal si cat du presse nag bari na mbër yu takkee ngemb biir ginnaaw raay ku ci mel ne soq ku ne am nga foo jaar moom sa diggante ak waaw ndax euh, man sama deret day sot man bëgguma ku néewal doole képp koo xam ne ginnaaw nga dëkk Pikine nga dëkk ndax euh, ñun dañuy bëgg ndamal nit ma xamal leen préparateur mystique bu doy waar la bari nañu soq rey moo leen rey moom bii de. waaw soq suñu nit la. mais mais xam naa daawal soq ginnaaw fan yi non fa nu wax ginnaaw sax soq dafa bokk ci làmb waaw day defar waat tuuti rek ñëwaat ci làmb ndax làmb dafa xaw a fiir làmb daa xaw a fiir mais na defar waat rek. Jabel bu ñu ñëwaatee tuuti ci prince nga wax ay qualité li nga xamante ni nekk des fois ay defu mbër maanaam bu ñuy jàppale équipe nawetaan dañuy wane seen bopp ci xeex ba ci xuloo ci biir Jokko. non pare saa Siritam jóg ci jokkoo Siritam Parensaay mu jóg ci jokkoo ndax Parensaay équipe bi di fubal mu bëgg équipe bi am ndam mu jóg am nu mu defee nit ñi ne ko eh, defal ndànk bul defee nii ndax yow ñi la bëgg dafa bëri xëy na jokkoo buy fële déggoo am na ay supporters déggoo yoo xam ne dañ koy supporter tey bu defee loolu rek mu nañ ko cee xeeb moo tax koy casé parce que Siritam jóg nag mu saaga nangam nangam mën na ko eh dalal. xëy na nga dëkk mais. soo gisee question bi xam nga mbër moo xam ne sëriñ dafa génn taxaw ne man maa ko yàq wax dëgg yàlla moom sax lu muy lu muy def rek mu ngi ànd ak xelam. ndax moom xam na lu ko waxul. parce que bu commencé sax boo ko xoolee ay bët rek mu xam li ñu ko wax. mu xaw a ree xaw la song noonu. nga ne ko dalal ndax fii ñu la bëgg dañoo bari. dëgg nag am nga foo am na am nga couleur mais parrain saay dëgg yàlla nga ànd ak nga ànd ak sa xel saay parrain nga ànd ak sa xel daal loolu daal lañ koy conseillé chaque jour. waaw. waaw. booy préparé nañ ko sur tous les plans te moom xëy na doful xëy gis gis topp ci ginnaawam tey bu ñëwee dina jàpp waa ji ba mu dëgër mu daan ko moo ko ëpp doole. ndax euh, ñi ne ci ginnaawam ak ñi koy préparé ak ñi koy conseillé wax dëgg yàlla ku ci mel nii. ñoom ñoom soq dañ fiy ñëw ñoom ñoom Valdo dañ fiy ñëw ñoom l'an 2000 ku ne xam xam xam leen wax dëgg yàlla ci làmb waaw te wax dëgg yàlla boo ba tey nag mu ngi topp ci ginnaawam te lu mu ko wax bu ko demee ba làmb bu ko jëfee day gis ndam te loolu lañu ñaan yàlla rek mu yokk mbiru Pikine yëpp mbiru ginnaaw raay yëpp bokk ndey bokk baay te xam ne ñun ñëpp ñoom lañ fi nekkal képp ku si am bis dinañ si jàpp dinañ dugal suñu dinañ def suñu suñu suñu doole waaw suñu kéemtalaay kattan. ok merci. nag yàlla may ñu ndam lu sedd guy. si kaw sa waay. yàlla bu fekkee sens la tey. waaw la ñun fépp la ñuy génn ñoom moom lépp làmb dañ fee ñëw pour andi dara. ñëw ñu pour jël yëfu jàmbur de suñu yëf boobu la ñuy imposé. barke alxuraanu karim. mu mooy borom dëkk bi. moo ko moom fi tegaat moom kese la ñuy toog. dama gis tey dugg Pikine ginnaaw raay ginnaaw raay yëngu. ginnaaw waaw moom moo ko rek waaw. lépp lépp moom la rek waaw. léegi dafa am laaj bu may laaj mooy mooy ñëw naa ma boo demee laaj leen ko lan mooy mbooli. waaw mbooli amul arrêt. talib yëpp la ñuy yàq. billaay wallaay zembare njool kese toppuñu keneen moom kese la ñuy topp. mbaa mais mbaa du sëq saani presse ba daan na sëq saani jokel sëq saani lu war rek la ñuy def. làmb ji ni ñu ko toog si tànk yi jàpp ñun ñibis. arène nationale ba fii dañ koy. technicien ngeen di dajal de. waaw xam nañ loolu. waaw mais xam nañ fu ñu mën a yóbbu. na boo yom freiné de. non ñun xam nañ fu ñu mën a yóbbu te ñun si kaw lañ yóbbu. lan mooy suñu yoonu bopp jëluñu yoonu keneen. lan mooy Zembere. Zembere Zembere Zembere rek yoon bi mbooli mbooli rek. Perez kese. Perez. nga ni foore kii mooy fitir koo ferfete kii du foore day na yàlla top 5 li nga yóbbu gan bi kii xamul war na yàlla presse dañuy topp de. pare nañ bu yàgg war na yàlla top 5 lañ koy pare nañ bu yàgg pare nañ boore laaxi la xaar bu ñëw laaxi. laaxi la xaar bu ñëw laaxi. Ah, moom moom xam moom moom. nañu bu baax. dañ koy wax luñ koy wax ba pare. te li di wax lay def xel day dal. bu faral prince direct baa nga yéeg faral prince defal ma kër ma xool kii leget gi la jël. nuyu naa la euh, prince Jokal Jokal jiitu prince ci làmb lu bari waaye day dajeeg mburu dëkk boo xam tey bi mu jógee euh, lu ma ne sax ginnaaw raay mais mais banlieue bee yëngu. tey noo gisee yooju làmb. tey sànq bi may ñëw maa ngi koy wax kii ne ko bi may ñëw bi ñëw ak coow lu presse am ak burle bi sama xel dafay dem ci bàcc seeraas 2006 2007. waaw bi muy bëreeg ñoom Balla Gaye bi muy bëreeg ñoom Balla Diouf bi muy bëreeg ñooñu foofu la tey presse toll ci ginnaaw raay bokk na ni. ci làmb yaakaar naa ne bariwut ñu kopp mbooloo presse bi ma gis ñëw ëppan presse am bërki démb fa del nee bari na ci ñuy yëngu ci làmb gisuma mbër mu kopp mbooloo xale la mi ngi ñëw di lu xeeku te boo xoolee carrière am nekkul luy yàgg ci làmb boo xoolee ci li mu débuté ci premier combat ba ci deuxième combat ba tey jii muy bëre jokkeer di bëre bis boo xam te ni moroomam yu bari bëgg nañ koo bëre muy bis bi muy bëre waaye ki muy dajal day tàmbala saa joo xam ne ba muy dalee bëre yàgg na am expérience jiitu ko ci làmb mag ko ci làmb presse tey soo ko indiwoon tey loo koy digal. presse su ma ko indi woon sax du ma jàppante tey maa sut. maa gën a njool. damay xaar wàcc samay tànk di xeex ak moom jàmpar benn benn. dama koy duma ba gars yi ba doyel lu ma ko bëgg a daan noonu laa koy indiwaat. kon tey buy noonu presse Balla Gaye Tapha Tine ngay indi. barke borom Touba. di ko di di ko duma. muy faju ji di ñëw ma koy duma muy faju di ñëw ma koy duma ba xool daal di les supporter noonu bëgg ma daane ko. presse nee naa la mbër la moo xam te nii ku ci bëgg a daan di nga liggéey ndax njool la daa toll ni mbëri di tollu ndax bi mu ne bëri dugg ci làmb ñi ne basketteur la gars yi mën ko ko tuddee la basketteur de l'arène ana mbër mi kenn du ko laaj te bu voyagé ñëw lekk li lekk gars yi di lekk yor oto xel mi dal mu kaase wu buru bi wàññee ko tuuti barke sëñ Fallou day dégg daal yi. Cokkeel boo koy nuwoon tey pour mu ci combat bi loo koy digal. ki ngay bëreel njool la te mbëru la boo xoolee ëllëg gën su ku ko dàq bëri ci làmbaamut ndax dama koo seetaan maa ngi moom a yarandoo dali for ma topp ko mbapat keroog bi muy bëree bari na ci ay supporteeru jokkeel ay supporteeru presse yoo xam ne dama leen leen bis bu daanee qualifié man bis bu daanee ëllëg gën si ma nungul ko ak mu keroog mu bëri avec la manière bëre ci bëre bu bi seexal tànk bi koli ëllëg gën mboot ko mbootum colol na ko nañu tukki te njool muy mboot nag na ko gars yi moytu. waaw mboot jolol bu la daanaka doo am sens. doo am sens da lay njool boo leen àndee tukki lu yàgg yàgg yàgg moog daama ci suuf la dañuy seet. bakkan mooy laam bul poussé bul poussé waaw ah, ah, ah pour damaa gis ñoo xam ne eh, dañ di ay quelqu'un ci mairie bi di jàppale jeunes yi muy xaale ak ki nga xam ne wax ci moom ndax kenn ku gis na kaaw euh, Modou mu liggéey ci liggéey bu am solo boo xam ne ko rek ambulance bi yëpp Modou Gueye yóbbu ko Touba mooy booy bi demoon ci manifestation bi grâce à moom mii moo defoon loolu muy muy maama la muy maama koo xam ne mootuma wax ci moom xaale nuyu naa maa ngi lay ziar bu baax di la fay di la jox sa wàccuwaay tey ñu gis ngeen ñëw pénétrer dugg ci biir lan ngeen jokkoog seen rak seen doom prince. waaw li ñu jokkoog moom am na solo ndax ginnaaw noor ak ginnaaw raay sud benn ginnaaw raay la prince comme ni ko sama frère waxee moom Mamadou Lamine Mbaye nekkatul sax mbaru ginnaaw noor ak ginnaaw raay sud mbëru Pikine la bañ na ko ba drapeau AS Pikine lay tak di ko sol kon ñëw nañ ñaax ko xamal ko li nekk ci ginnaawam ci turu honorable député maire Ablaye Diop ñëw nañ def suñu appui. ci point de presse bi lañ waroon a open presse am lañ waroon a ñëw yóbbul ko liñ koy yóbbul mais dafa xatoon parce que dañ nekk séminaire le maire ni ñu nañ dagg séminaire bi ñëw teewal ko man ak le chef de cabinet euh, a Ndiaye ak euh, Mamadou Lamine Mbaye directeur centre société culturelle ak Cheikh mi nga xamante ne aussi mi ngi ci nekk CGE foofu ci APIX donc ñi koy ñaanal ndax xale la te ci yoon ñuy ñaan nag ñëpp na ko ñëw ñëpp jàppale Sénégal nañ jàppale Prince xam na li mu bëgg xam na fi mu jëm kon buñ ko jàppalee yaakaar naa ni yàlla mun nañu defal Pikine ñu am champion boo xamante ni dina jël roi des arènes jël empereur kon ñu ngi koy ñaanal bisu tey mu am ndam bu sedd guy ci barki yonente bi salallaahu alayhi wa sallam d'accord Modou Lamine balaa ngaa dem ñaari baat gis nañ ni presse bokku leen commune mais gis nañ ni Laye Diop xoolul maa bokk commune bokkul commune lu dal fii doomu ginnaaw mu participé ci ci financièrement ak ci xalaat tey aide yooyu muy def je sama frère wax na lépp dañ fi ñëw tey parce que euh, presse nekkatul mbëru ginnaaw raay noor kese ginnaaw raay sud ginnaaw raay nord Pikine est Pikine ouest tey commune yëpp war a nekk jàpp si ginnaaw di ko jàppale parce que gis nañ ni mbër bu am fula xam na li bëgg xam na fi mu te mi ngi liggéey pour dem ci comme ni ko xaali waxee nag le maire Ablaye Diop yabal ñu pour ñu ñëw indi sa modeste contribution parce que gis nañ ni mbër bu amee mbooloo bu topp sa ginnaaw day soxla ay car day soxla ticket ñu ja ko loolu nag ñëw tey jàpp si bëgg incha allah yàlla may waxee bu ñu fa jógee nag maire dina ko recevoir à ni dinañ de suñu appui dina ñëw bien avant. Lamine Mbaye ci biir euh, open press bi ay xale ne mhm. mhm. mhm. ni ñu ko gisee mooy que organisation rek parce que euh, nit lii li la doon ñaan yàlla dem ba mbooloo ëpp ko doole. presse mbër la boo xamante ni peut-être nit ñi am na catégorie bi ñu ko teg mais wa mais mais présentement dafa nekk mbër boo xamante ni tey li topp si ginnaawam daf ko ëpp doole moo tax des fois yenn failles du manqué mais comme ni nga waxee rek comme dafa nekk à cheval entre ñaari commune dinañ fexe ba les deux communes ñu jàpp ci fexe ba euh, yu mel noonu bu ëllëgee dootul am incha allah gis naa merci beaucoup gars yi kontaan naa jéem a kaay war ma bi yow kaay war ma yow yow laa soxla waaw kaay waay